su ngeen soxlaa itam defal leen décoration comme ñi ngeen gisee lu yaañ yi yii yu rafet yii ci biir kër su ngeen soxlaa ay studio yéen ñi nga xam ne ay plateau télévision ngeen yore su ngeen woowee waa Kadeco ñu décorer leen ko ba mu saf mu baax 312 80 57 312 80 57 77 ngay jiital 312 80 57 ñu wax la seen euh, lieu dañuy njëkkee Bilia fa Abi Ndour donc Abis Garden day def ñaari date suba la ak tey te suba moo war a nekk takku Zeyna nduur mii ñu bari jàpp ne daf koo def exprès mm-hmm. est-ce que mën na nekk exprès parce que d'autant plus que takk la rek takk la ci jàkka ja après anytime le douze la réception le treize est-ce que coïncidence amul rek gars yi bëgg cee profité dugalaale porox ndollu diggante Aby Ndour ak Viviane seetul rafetul wala boog seen diggante neex woowuñu moo tax ñu bëgg dugal yenn kii yenn yenn yenn polémique yi. Mhm. Alioune Badara Olof Ndiaye danaan tombé waral ay gaaf tey jii nag euh, loo xamante ni ñoom ñaar ñaari dates yi dañoo tombé la ndax dat bi euh, yàgg nañ koo programmé du woon tey euh, bu abidur bi mais ba tey Alioune Badara buñ ciy tiire ay conclusion yoo xamante ni yu negative lay doon ndax di problème dafa am ci diggante. Aby Ndour muy Viviane ba doom yi duggoon ci diggante doomam moom euh, ñu yàkkante fi lu mel ni ketambe ba wàllum yoon amoon amoon ba ñu demoon ci yoon maanaam Viviane euh, ne woon mi ngi ci yoon mais après ñu teg lépp ci suuf mais Alioune dara yaakaar naa luy luy fay taal bi mooy gën lu koy gën a xambaat mu jëm ci kaw te sénégalais yi nañ def attention bu baax a baax gis nga famille Aby Ndour bàjjenu Zeyna la Zeyna mënul fexe ba Aby du doon bàjjanam moo buubaa bokk ndey ak Aby Ndour tamit mënul fexe ba Zeyna du doon jarbaatam ndax doomu càmminam la doomam la deret bi daw ci moom mooy daw ci Zeyna kon na rafet nañ ko jéem a xool nuñ koy rafetalee mais réew mi am na ay communicateur traditionnels yu fi nekk dañ cee war a dox man côté boobu laay ñëwee Alioune Badara réew mi dafa ay communicateurs traditionnels yoo xam ne dañoo nekk ci réew mi di dox jàmm buñ baay ba président nekk fii di joxe xaalis ñuy dox jàmm yenn saa bu ay problème amee ci famille te famille boobu mu doon famille bu siiw war nañ cee dox euh, jàmm te kenn du ko yëg caméra du tàkk téléphone du tàkk dara du tàkk ndax lii euh, problème la boo xamante ni taf-taf mën nañ koo lijjanti ñu jàll ci leneen nee naa xew mi Viviane mu mu jote ak mu ñàkk jote yépp bàjjenu Zeyna ñoo war a yëg xew mi ndax loolu mooy respect ndax ah, ay jigéenu buuba lañ daw ma daw ma ca fa ñuy yëglee ak fu ñu dul yëglee li muy li may wax rek lenn la sénégalais yi ñiy tiitare nañ xool bu baax ñi ni ñuy tiitaree instant da ngay gis loo xamante ne Abindour moo ko tey mais Alioune Badara restaurant wu Abindour bi di Abis Garden ñëpp xam nañ ni day day organiser ay soirée yoo xamante ni si biir restaurant bi lay am loolu yàgg nañ gis abi mu koy mu koy publier ci page am. du tey kase bu doon maanaam daa bàyyi ba tey mu soo koo def. maanaam moo gulet soog a ñëw dinañ xool ni ñaar yi nag dafa tombe est-ce que arrière pensée soo a mën a ñëw. Mhm. ba pare bu doon réception bi sax la tombé dina ne dafa teg lii pour am benn excuse boo xamante ne mën a dem ci réception bi maanaam nañ teg lépp daa di koy faram-fàcce bu nekk parti par parti mais lii daa tombé ja takku jàkk kase albara am na ñoo xam kenn du dem ci seen takk takku jàkk kase am na jigéen yoo xamante ni booy def réception lañ lay ñëwal sa mariage takku jàkk bañ naka dañoo ne euh, góor ñi ñoo ko moom ñooy dem ci jumaa ja mhm. ñu daal di ñaan ñu daal di takk sëy bi xale bu jigéen bi jour boobu dangay gis kër yaayam lay toog mooy ca kaw lal ba comme ni ko olof yi di déglee sa kaw lalu yaay ngay toog heure takk jàkk bi bu jàkk takku jàkk bi passé na bu la neexee après nga sant yàlla comme léegi dugg nga ci faratak sunna mhm. ñu jàll ci leneen mais le 12 ak le 13 bu ñu xaaree ba jour boobu ni ñu gis ni Aby Ndour defaat na leneen mën nañ xam ni excuse lay wut pour mën a dem te Alioune Badara kër damaa wax ju am solo mhm. muy abi muy Ngoné ak ku mën ci doon te nga bokk ak buuba ndey baay baak baay même Viviane bu leen yëgalul ñoom seen wareef mooy ñu dem ca xew ma ah, na naa seen doom la seen xew la kenn waru leen ko yëgal kenn waru leen ko yëgal gis nga tey li nga bokk bul xaar kenn la ci bu boobaa Viviane la ñëpp di dut baaraam ni moo deful wareef ndax moom moo jël xew mi te yëgalewu ko ay bàjjanu doomam mais tey jii nii ñoom bu dee dañuy toog di xaar Viviane ñëw yëgal leen pour ñu soog a mën a def eh, dem ca xew ba ñoom tamit nekkuñu ci yoon. Ah, dañuy nekk ay fautif su boobaa. waaw dañuy nekk ci ndax tey jii nii euh, maanaam bi buuba di jur Zeyna muy nekk bébé dañ ko doon téye moom wax na digganteem fi mu jaar ak vivian mhm. dam fekk Viviane fi mu amee doom di téye doomam kon moom jaar na ak Viviane fenn seytaane nag moo bëri doole. yenn saa ñu ne seytaan waxul dëgg mais day yàq xel. Ah, am na day yàq waaw mais tey jii nii nag moom ñoom ñoo jéem war a jéem jël seytaane tegee na le indi deret indi mboq gis nga Alioune Badara mboq alalu yàlla ku koy sàmm ku nekk euh, loolu suñu borom tiyaaba yam la ciy bind kenn xamul nu ci toll seetlul famille ki ci dàkk jubóole ak ki ci dàkk di organiser ay affaire di dajale famille bi pour ñu juboo kenn du ko yërëm. ah loolu gàllaaj la. seetlul loolu. Ah, moo kuy kuy toog ci famille di di jox di ataaya di joxe mooyam. waaw ah, nag. waaw te da ngay bëri xéewal kuy ataaya di joxe. yenn saa nga nekk ci famille nga ne xaaral ma tee sama ba problème bi sama yoon nekku ci yaa ngi def erreur. mais tey ñoom ñii seen i biir am na ay kilifa yu fa nekk yoo xamante ni sànq maa ngi laal communique communicateur traditionnel mais ñoom rek ñoom seen biir yuusu bi bi bi affaire plainte jubeeg yooyu moom da see da see dox. moo tax plainte bi wàccaat ci suuf. moo tax plainte bi wàccaat ci suuf mais mariage bii nii eh, ñoom tam dañ see war a jugaat bu ñu gisee ni diggante bi dem na ba toolu fii ndax Alioune Badara képp koo xamante ni yaa ngi xew say bàjjen di dund ñaan nga yàlla boo xew say bàjjen dara la nekk sa hmm. ginnaaw. loolu dafa neex maam di xew tourné da ci say bàjjen tourné daj dem ca takk ba ñu tourné daj say nijaay. Mhm. loolu dara dàq ko. Mhm. kon nag Viviane dafa war a sóoraale ni mu bokkee ak Marie ndey nekk ci wetam. Mhm. tey tamit buuba bu doomam di xewle euh, yéene na ay ñi mu bokkal ndey ak tamit nekk ci wetam accompagner ko ndax doomam lay xewal. doom ji ñaari nit ñaar ñaari parti la côté buuba côté Viviane nañuy fexe muy ratax ndax bu ko defee doom ji mën na am bañ a am problème yenn saa yi papa yaay ñu ngi def ay problème yoo xamante ni doom ji la ñuy indil. Euh, benn benn mal boo xamante ni bu jëm ci ay mbokkam. Hmm, te yoonam nekku ci te yoonam nekku ci. kon nag ñoom ay mag lañ xam nañ bu baax li baax ak li bon nañ jéem a teg lépp lu nekk ci suuf nit nag du rëy. Hmm. dafa am nit yoo xamante ni dañoo rëy képp ku ci rëy si ñoom rek ki ci gën a oyof rek na def première pas bi ñu jàll ci leneen. maanaam àdduna bi daa jeex ba pare Alioune Badara. Mm. te tey jii sa doom di xewle sa doomu càmmin sañseel ba jeeg dem yóbbu say teraanga. munoo wax a wax a wax a wax wax wax ba yàq sa doom jooju noonu boo ko leen deret ndax buuba bu naawee nga naaw te buuba jur Zeyna. Mm-hmm. bañ na ko ba Zeyna santu chidit Ndour la sant. Ndour lañ koy woowee. Ndour la sant. day sëyna bu Ndour. day sëyna bu Ndour ba pare ñu tudd ëlbatiku tuddee leen tuddee ko seen mag bu jigéen mooy ki daan sëy ak Mapenda Seck. day seen bu nekk ku baax. nit ku baax nit koo xamante ne ku bëgg Viviane. ñoom ñëpp daal dañoo bëgg Viviane seytaane yi ñëw nañ baay mu jàll ñu jàll ci leneen xew mi damaa yaakaaroon Alioune Badara xam lan la waroon a indi. boolewaat juboo yenn saa yi famille problème am ci mu am benn genre nu mu ko mën a tuddee xam nga phénomène mooy loo xamante ne du yàgg day ñëw rek jàll. mu am benn xew boo xamante ne day ñëw rek jubóole leen am na famille yoo xam ne xanaa xamoo dëj moo leen di jubóole. waaw par force. ñii ngénte moo leen di. ñii ngénte moo leen di jubóole ñii takk. ñii ceet boo ñëw jubóole leen. jubóole leen ñii tabaski ñëw jubóole leen. waaw tabaski ñoom ñëpp ñu indi seen i jabar. ñi nga xam wuju percoogo yi jubóowuñ. ñëpp ñëw ci kër famille bi. ñu toog nduróole lay waxtaan ka fooree. bu ko defee ñu jàll ci leneen problème mënta ñàkk. Mhm. mais xam lan moo gën a bon. dafa laay terminer. Mhm. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gën di mbindeef mi tax ñu sàkk ñu. Mhm. nee kuy mer. kudul mer kudul mer bokkoo ci man waaye tamit kuy mer di jàpp bokkoo ci man. ah kuy mer di jàpp moom ab bàyyi ma la. la bokk. mais xam nga mer ci nit la bokk. waaw ah, kudul bokkoo ci yeneen. waaw mais tamit mer di jàpp moo bon. waaw nañuy jéem a di raxas xol yi. Hmm. Euh, lépp loo xamante ni boo jàppee ni war nga ko mën a jàpp sa digganteeg sa jabaru càmbin même bu dee sëyatul ak moom sax munoo fexe fexe fexe fe ba ba du dégg muy ex. ak muy jabaraat ba tey sa jabaru càmmin la woon lu mës loo mës dégg nga ne woon la woon rek won ni woon na waaw la woon day mooy amoon na waaw xam nga lu amoon lañ naan la woon la woon tey jii nag mënuñoo mënuñoo fexe ba dindi Viviane bañ na ko li ko topp ba abadan mooy kenn du wax Viviane Chidid Viviane Ndour la wax mhm. ñu bëri bu ñuy wax dañ naan Viviane Ndour waaw man tàmm naa ko ba yenn saa yi bind Viviane Ndour fàtte ni waaw nekkatu si kër ga. nekkatu fa defaat chidit. dafa dal suñu yaay Soda Mama Fall. ah lapsus mu juum ci côté boobu. waaw Soda Mama Soda Fall la tudd. Mama moo doon jëkkër ji. Mama gi day topp da koy topp ba léegi. moo ngi nii te kenn mënu wax Soda lu dul Soda Mama Fall. waaw naan Mama mais mooy maanaam nañu di jàmm ñi sa mën a dox daal yàlla dina leen bindi tiyaaba yoo xamante ne ñoom tamit si ñaari parti ku si njëkk a jug rek tamit di nga am tiyaaba kon nag nañ ko gën a rafetal na naa mooy sëy yi te seen doom la ci ñaari côté yépp Viviane ni Marie nekkee ci wetam euh, Zeyna kontaan ci yaayam euh, magu yaayam yaayam la waaye tamit euh, Zeyna Bouba Ndour bëgg na mu kontaan tamit ci ci jëm bàjjanam yi ndax bàjjan nag mooy baay. effectivement muy analyse bu am solo donc am na yeneen parti yoo xam ne am na ku ciy wax ci sëy bi naan lii ak la loolu ça ne nous intéresse pas duñ ci dugg parce que ñun moom. on n'est pas dans ces genre de sujet puisque. dañuy rafetal waaw ñun lu rafet lañ soxla soxlawuñu ko koo xam ne yow sëy bu ñu takkagul nga commencé wax lan ngay wax hmm? boo xamee dara ñaanal yàlla loolu bañ a am moo gën ngay ñaan mu mu am donc may fàtte euh, Fatoumata Fouta Tampi daf ma yóbbante ci yow yóbbante la sax wala kii la rek waaye nee na ma ki ngay toogal noonu ku xees ki ma ne ko waa Bélia mu ne elle est waxal ma ko loolu Fatoumata Fouta Tampi moo ko wax. maa ngi koy ziar bu baax a baax ni muy euh, analyser donc mhm. peut-être mu ngi seetaan. Fatoumata Fouta Tampi. maa ngi koy ziar bu baax a baax moom moom nit ku baax la. macha allah temps jàmbaar la mu ngi ci ruqam di liggéey. Mhm, mhm. nekk ci tiktokam di jaay. <laughs> duggul kenn. maa leen man moom ma rombee laay boobu dama koy seetaan day dindi stress. waaw baa leen jàmbur nag. wax naa leen ko. mu noonu muy euh, euh, dañuy des ba tey ci euh, kii bi. ci mariage bi. ñu xool teraanga ji nga xam ne parce que fu gars yi di waxee polémique tam am na ay teraanga. yuy ñëw te teraanga yooyu tam c'est important lii magu Viviane moo ko def juste pour encourager seen doom nañu xool teraanga ji dellusiwaat.